ay noot Israël dafay noot Palestine dëgg bi mooy Israël c'est un état dëgg bi mooy Israël moo tooñ loolu mooy dëgg te yéen ñii nekk fii loolu moo leen fi indi donc waru leen am benn gàcce benn complex ngeen nekk jullit di jàppale jullit yooyu ñuy noot te nekk Palestine ndaxte nag at yi passé dafa am ñoo xam ne dañoo am complexe ba ci jullit yi dama ne am na ñuy jëfandikoo diine ngir noot askan loolu bëgguñu ko jëfandikoo diine ngir noot askan bëgguñu ko waaye jëfandikoo diine ngir fecci askan ngir libérer askan ngir émanciper askan ngir xeex nooteel diine boobu baax na jëfandikoo boobu baax na loolu ngeen di def moo tax ñu ne Palestine ci kaw Palestine ci kaw Israël ci suuf Palestine ci kaw Israël ci suuf Israël dégage Israël dégage Israël dégage beneen bi mooy war nañ am gàcce état du Sénégal bu ñu moytuwulee bu ñu seetaanee ñun askanu Sénégal état du Sénégal dina jël ndaare ci beneen fànn muy jàppale bu ñu waroon jàppale suñu mbokk suñu askan suñu mbokk waa Palestine. ndaxte état du Sénégal dañ ko ràññee woon ca kaw ca kanam ca li doon xeex li doon noot askanu Palestine waaye fan yii weer yii dafa mel ni ñun état du Sénégal ñu ngi bëgg a jël ndaare ci fànn boobu. ndaxte boo dégluwee seen communiqué bi passé dafa mel ni dañoo yemale. Israël ak Palestine te yemuñu li a mooy Israël moo tooñ li am mooy Palestine ce sont pas des terroristes Palestine ce sont des résistants Palestine ce sont des résistants vive vive la résistance brave et héroïque du peuple martyr de Palestine lii mooy wax ji nekk état du Sénégal bëgg a yemale Palestine ak Israël loolu duñ ko nangu tey duñ ko fi nangu ëllëg Palestine vivra Palestine vaincra acca ca kaw ca kanam jërë ngeen jëf. jërëjëf farag dëgg daal ndekete lu neex